وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم ak wéttali ko barabam bii nii yàlla nañu ko nangul boole ñu ci ñi muy woo suba naan ana samay dëkkaale eh, yeneen suba yàlla suba yawmal qiyaam ana samay dëkkaale saxaaba yi ne kan moo màgg garaat ba mën a dëkkaale ak yow mu ne ñi nga xam ne dañoo soxoo woon jàkk ñoo samay dëkkaale yàlla boole ci ñoom jaay rasulillah aywa pour eh, bi passé dafa benn waxtaan bu ñu doon def diggante farataay julli ak sunna léegi am ñu sàkk woon pour nañ ñëwaat ñu leeralaat ba ñu waxtaanee suñu biir ñu ne jarul ñuy xaar ba sama tuur waru ñëwaat balaa diggante bi fàtte di ci xeeñ nañ ko renforcer waat rek benn yoon aywa waxoon nañu ci farata yi ak ci sunna yi xam naa waxin bi gaawoon tuuti léegi dinañ ñëwaat ci farata yi ñu romb ko rek benn romb boo xam ne dañ koy tuddaat amaana comme que jàngoon nañ dana tane waaye buñ ñëwee ci sunna yi dinañ ci xaw a taxaw tuuti ba ñu mun waxoon nañ ne euh, sunna yi euh, farata yi fukk la ak juróom ci ñenn ci ki nga xam ci ki nga xamante ne nag moom kese la wala mooy imaam bi fukk ak ñeent lay doon hmm. waaw ci biir ba may seetaanat vidéo bi maa ngi doon gisaan may wax lu bëri ñaar fukk ak juróom mais dama doon juum waaw mm. mais fukk ak juróom la naka noonu tamit imam bi moom ci boppam mun na nekk ci moom fukk ak juróom bu fekkee ne day jiite juma bis bu aljuma da ngay ne yaa ngi jiite bis loolu yéene bi day tegu ci beneen yéene mooy yéene julli waxtu bi naka noonu tamit booy jiite lu mel ni alxusuro mooy euh, julli boo xamante ni dañoo téye weer bi wala jant wi yooyu itam imaam bi dafay yéene julli googu noonu day yéene ne moom mooy imaam bi mooy jiite kon day na nekk fukk ak juróom ci ma'muun bi mooy kiy topp ci imaam ak imaam bu fekkee ne aljuma lay jiite wala salaatul xushu à part ñi des ñëpp fukk ak ñeent lay doon limoon nañ nag ne bi jiitu ci farata yi mooy yéene yéene bi moo jiitu ci farataay julli léegi nag yéene bi comme ni Thierno Souleymane waxoon du wut ne forcément danga ko war a duggal diggante allahu ak akbar bi waaye balaa ngay julli rek nga yéene ci sa xol ne yaa ngi julli waxtu nangam loolu itam boo ko mu neewee xalaatee xalaatu arab maanaam yéene du wut lu ñuy wax ci làmmiñ waaye lu ñuy wax ci xel waaw nga teewlu ko ci sa xel wax ne yaa ngi julli waxtu bu dee dangay ngay fay itam da ngay yéene yaa ngi fay waxtu nangam bu dee kuy topp ci imaam la nag foofu la yéene waalee ne maa ngi yéene topp imaam ci waxtu boobu waaw roy ci imaam boobaa nag foofu lay waxee moom allahu akbar boobu noonu muy wax farata ci julli bi yëkkati loxo yi la ñu wax bokkul ci farata wax ko mu feeñ tam ci farata yi allahu akbar rek waaw wax ko rek mooy farata bi feeñal bi sunna la dinañ ci ñëw yëkkati loxo yi bañ tolloog nopp yi wala mbagg yi tamit ci ngëneel yi la bokk kon am na ñaari farata mooy yéene ak kàbbar léegi nag bi ko ñetteel mooy taxawaayu kàbbar taxaw bi ngay taxaw pour kàbbar taxaw boobu noonu farata ginnaaw loolu mooy jàng faatihatul kitaab faatiha ñeel koo xamante ni mën na ko wala mën na jàng ba mokkal ko loolu dafa bokk ci charte yi nga xam ne day wéral julli yeneen bi sallallahu alayhi wax na ne julli du wér ci lu dul faatiha léegi nag sauf ki nga xamante ni mënu ko carrément mënu ko bu doon jàng fii ba kii mënu ko wala mu ngi doog a tuub war a julli te amul ko ko jiite nee sàbbal yi mën na kaa remplacer xattaa bu mënul wax sax xattaa bu mënul sax sàbbal dana taxaw rek li tamsilan mooy wone ne moom jullit la dugg na ci lislaam waaye bu dee am na mbooloo day julli ci mbooloo après ginnaaw loolu ñu jàngal kon ba tey yooyu ñu éviter di dugg ci détails yooyu xëy na mu guddal waxtaan bi fekk du ñu si fi faatixa bi farata ci julli bi taxawaayu faatixa bi itam farata ci julli bu ñu xoolee am nañ juróom am nañ yéene kàbbar taxawaayu kàbbar faatixa taxawaayu faatixa ginnaaw gi mooy jàpp óom jàpp óom bi ngay jàpp óom farata mhm, loolu mooy nga rukkoo siggi ba tolloo siggi ba taxawaat farata la waaw gis surtout naar yi naaru Mauritanie moom bu ñu sëggee nii boo moytul ñu siggi dañuy enchaîné rek dañuy sëggaat rek yàkkamti rek loolu moom gis naa ci ñu bëri waaw loolu siggi bi ba nga tolloo ba dal ci farata yi la ko bi sujud farata la sujud mooy sujud bi nga xam ne bi moo koy def boobu farata la siggi ci sujjóot bi ba toog itam farata la ba nga ba nga carrément mooy bu fekkee ne mooy sujjuut bi jiitu maanaam siggi ci sujjuut bi amaana da ngay war a toog wala da ngay sujjuut war a jóg waaye siggi bi moom ci sujjuut bi farata la ginnaaw loolu sëlmal farata la toogaayu sëlmal bi itam farata la toogaayu toftalante farata yi farata la voilà amoo droit sujjuut doog a jàpp oom wala jàpp oom ba sigi doog a jàng faatixa déedéet da ngay toftalante farata yi naka noonu tamit yamoo mooy yamoo gi ngay yamoo soo jàppee oom ak boo sëggee ak boo toogee yu mel noonu yépp ci farata yi la bokk dal gi itam dal ci farata la bokk xam nga nit ki bu jàppee oom ba siggi rek d'accord siggi na mën na sëggiwaat kon bu waxee loolu waaye il faut mu dal oh. waaw loolu ah, noonu farata la boo ko compté muy 14 yii ñooy 14 yi nga xamante ni nit kiy julli moom kese daf koy am imam bi jiite ci julli bu dul lu euh, mu tudd jumaa ak julleeg xaw julli boobu nu ko olof di waxee muuru hmm? jant waaw bu boobaa imam boobu noonu tamit quatorze yi moom mooy nekk farata waaye képp koo xamante ni da ngay roy ci imam wala imam bi day jiite aljuma wala day jiite julli muur ak jant boobu noonu moom itam dafay yéene ne moo ngi jiite mbooloo boobaa mu nekk fukki ak juróom yii ñoom ñooy farata aywa léegi nag ginnaaw loolu sunna yi sunna yi julli sunna yi julli ba tey waxoon nañ ne 14 la moom itam fukk ak juróom la ci ñenn ñi yenn yenn saa yi nga gis lu mel ni yuy yóbbu ba fukk ak juróom-ñaar lu mel ni Ibnu Ashir waaw ci ci madhab Maalik la waaye da ciy indi ba fukk ak juróom-ñaar waaye yooyu muy indi dafay am wuti xattaa ba ci biir madhab bi moo tax ñu ne nañu choisir rek 14 yi nga xamante ni ñoom téere yi nekk ci madhab bi yëpp dëppoo nañ ci mooy liqaam nit ki buy julli mu liqaam liqaam boobu noonu ci sunnaay ci sunnaay julli la boobu liqaam moo jiitu ci sunna yi ginnaaw itam mu jàng suura mooy mu jàng saar wala aaya mu jàng saar wala aaya loolu kon mën nañ cee déggee nit ki bu waxoon ne allahu akbar jàng fatiha ba mu jeex ne xeyril magdubi alayhim wala dallin bu nee qul huwa allahu ahad bu jàppee boobu am na julli am na julli waaw mu yëm ko rek ko neex na sa aaya bu gën a bu gën a bu gën a gàtt loolu da gis yenn xaw ma sanda nu ñu koy waxee ci olof mooy magu daara yi ci fuuta da ci am ñoo xam ne julli moom dañ cee yàkkamti yàkkamti da ngay gis sax ku taxaw ne wala daal li ne summa nazara rek jàpp ko waaye dafa xaw a doy waar ànd ak ne ànd ak ne kenn mënu kaa wax dara parce que am na julli aaya lañ ko wax loo wax na aaya waaye loolu day xaw a font loolu moo fonk julli hmm. mos naa dégg ci oustaz mi mu wax ko yàgg na boobu Thierno Aliou mu ngi dund mu ne ñaar yi ñaar ñii waruñ kaa yëg mu ne sa ñàkk jot yàlla waru kaa yëg ci sa jaamu yàlla mu ne sa daraja tam say waajur waruñ kaa yëg loolu déggoon naa ci moom yàgg na lool wax ju am solo la surtout nag ci julli sa ñàkk jot bu mu feeñ ci sa jaamu yàlla naka noonu tamit sa am daraja bu mu feeñ say ci say waajur kon جانغو سار ولا سورة جناو فاتحة لو دعانا ما نام لون موسى النبي لون لك فصام بوك من تدفعي نتك من نجوجي بقرة دم دليل كل عوض رب الناس عادة كل رك أن كان نتك من نكو بس بتعمل في باي قدم فلي كم نيجي كسي نتك من نجوا كبر جانغ بن آية بو خمن تني لي مرتلي آية بي مم ما شاء الله حافظ لك خمن معناه خمن في دي على دي وفي لكو يلير الموجي فلي mu dem tëdd fële na la continuer ko dara nekk ci wala mu bàyyi benn saar jàng saar bi ba mu jeex continuer dem jëli beneen saar comme nit ki jàng innaa anzalnaahu ba mu jeex après beneen rakkaa bi mu jàng falaq ak naas maanaam foofu amul limite ci li ngay jàng sauf bu fekkee na ngay jiite nga bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom ngay jiite naka noonu taxawaayu taxawaayu saar bi booy jàng saar bi taxaw gi ngay taxaw ci sunna yi la bokk mhm. feeñal ci lu mel ni fajar wala timis wala gée mooy biral oustaz doon wax nañu wax biral biral bi ci sunna yi la bokk fa bokk ci sunna booy jàng booy julli fajar wala timis wala gée nga biral te foofu noonu gis nga julli jullit bu nekk rek di tax yeneen bi sallallahu alayhi ne moom mooy fondement julli mooy fondement wu diine jaaxal gis nga bu ci nit di xalaat di góorgóorlu di ci xalaat lu bëri di ci ñaan yàlla itam mu mu firil la yu bari da nga ciy gis kéemtaan amul dara loo xam ne dafa ñëw au hasard ci ci waxtu yi muy ci nombre rakkaa yi muy ci façon bi ñu koy amul dara loo xamante ni dafa ñëw rek ci hasard amu ci boo xoolee yi nga xamante ni waxtu yi ñu koy julli dañoo biir mooy waxtu yoo xam ne dafa leer nga gis yàlla ne foofu na ngeen nëbb li ngeen ñaan waxtu bi nga xamante ni mbir mi dafa lëndëm mu ne na ngeen feeñal li ngeen jàng am na maanaa bu fa nekk ba tey rek ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla découvrir waaye mu ne la feeñal ci barab yi ñuy feeñal mooy ñetti yi fajar gee ak timis naka noonu nëbb gi ngay nëbb ci tisbaar ak takkusaan ci sunna yi julli la bokk mooy nëbb gi ngay nëbb mooy yellu bi yellu waaw yellu mi ngay yellu doo boo jàngee foofu tamit ñu leeral fa ne nit ki buy julli surtout bu fekkee ne du mbooloo moom buy jàng ba moom mu koy dégg moom kese ba tey ci ci yelu la nekk moom mu koy dégg ci yelu la nekk mën na yelu ci jàng ba ci kaw ba moom mu koy dégg waaye bu ko keneen déggee foofu la ñuy wax waxu biral boobaa biral comprendre naka noonu tamit biral soxla wuñ pour na yëkkati sa baat ba mu kawe à moins que mbooloo mi dañoo bari nga bëgg ñoom ñëpp ñu dégg li ngay jàng naka noonu kàbbaar yi nekk ci biir julli yëpp ba mu des takbiratul ihram allahu akbar yi ngay wax mooy dem jàppi oom booy siggi booy sujjuuti yooyu yëpp ci sunna yi la bokk kabaru armal sëf kabaru armal kabaru armal bi ngay wax allahu akbar dugg ci julli bi boobu ci farata yi la bokk kàddu gi ngay wax sami allahu liman hamida mooy boo jàppee oom ba sëggi ne sami allahu liman hamida su ma juumul waxoon nañ lan moo ko waraloon baat bi li muy firi mooy samia dégg na wala samia nangu na allahu yàlla liman ñeel ka nga xam hamida hu sant na loolu la baat bi li firi yàlla nangul na jaam bi ñaanam wala yàlla dégg na nu mu tudd bi ko sant ndax baatu samia day firi nangu كم نيان النبي صلى الله عليه وسلم ونيان بمي وحنان ونعوذ بك من دعاء لا يسمع نيجي لي نيان قوم مسلم تي نيان بو خامتيني كين كو نانغو باسكو فوف كين كو ديغ امول معنا نخ يالا موم هو السميع البصير ليف بلاي ديغ كون بو ني نيان بو ندول ديغ معنا موي نيان بو ندول ناو نكو نونو legi nak fofu non ma leral tammi moy sami allah liman hamida li nga xamanteni mom la ñepp and ci madhhab bi moy ne ki koy wax mooy imaam bi ak kiy julli moom kese moom kese mooy koo xamante ni dafay julli moom kese wala mu wala mu nekk imaam boobaa day wax sami allahu liman hamid léegi nag ci borom xam-xamu mazhab bi am na ñu ne même ma'muun bi mun na ko wax ma'muun bi mooy ki nekk ci ginnaaw waaye loolu kàddu la ci biir mazhab bi maanaam duwut ne loo xamante ne ñëpp dañ cee dëppoo waaye li nga xam ne moom la ñëpp dëppoo mooy imaam bi mooy wax sami allahu liman ma'muul bi na rabbana wa lakal hamd kullu tashahudin mooy julli bi nga xamante ne ñetti rakaa la wala ñaari taaya yi def taaya yooyu itam sunna la waaw mooy taaya mooy li waxoon keroog taxiyaatu lillah bi ci digg bi ak bi mujj bi boobu ñoom ñaar ñëpp ay sunna lañ seeni toogaay itam seeni toogaay sunna la toog bi ñuy toog waxoon nañ fi tamit lan mooy sunna al muakkada mooy sunna bu ñu biral waxoon nañ mooy sunna boo xamante ni moom ci boppam dafa làkk beneen sunna mooy yu mel ni lu mel ni saar dafa làkk beneen sunna mooy taxawaay bi lu mel ni taaya dafa làkk beneen sunna mooy toogaay bi kon bépp sunna bu làkk beneen sunna rek boobu sunna mu akkada la boobu dañ kaa feddali voilà léegi nag boobu mooy bi nga xamante ni booy julli bàyyi ci benn kott da nga koy sujuutal waaye beneen yeneen yu yooyu boo ci bàyyee il faut nga bàyyi ci ñaar jëm kaw bàyyi ci ñaar jëm kaw waxoon nañ tam yooyu li tax benn bi rek di doy pour sujud wax nañ ko léegi mooy dafa làkk beneen sunna ci biiram naam julli gi ngay julli si yenent bi sallallahu alayhi wa habibi ya rasulallah ci julli ci rakaa bu mujj bi julli googu noonu tamit sunna la mooy salaatu ibrahimiya mooy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد am na nag ñoo xamante ni ci ci xëy na orma dañuy wax ne ñoom duñu wax allahuma salli ala muhammadin dañuy wax allahuma salli ala sayidina muhammadin waaye li gën ci julli moom ci julli mooy ni la ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee nga defee ko noonu nga defee ko noonu fukkeel bi wala fukkeel ak benn mooy nga sujjuutee sa catu baaraam yi ak sa ñaari tënk loxo yi ak sa ñaari sëpp oom yi naka noonu ak sa bakkan bi lii tamit ci sunnaay julli la bokk ci sujjuut farata bi mooy jë sujjuut bi ngay sujjuutee sa jë bi ci boppam waaye bakkan bi ñaari tenk loxo yi ñaari sëpp oom yi ñaari catu baaraam yi ñeel baaraamu tànk yi yooyu yëpp ci sunna yi sunna yi la bokk. mooy farata bi asalaamaaleykum naka noonu asalaamaaleykum ñeel imam ak asalaamaaleykum càmmoñam loolu moom moo ñëw ci madhab Malik feeñal gi ngay feeñal sëlmalu farata bi tam sunna la mooy booy génn ci julli bi nga ne asalaamaaleykum ba mu feeñ sunna la léegi nag uute am na rek waaye ñaari ku wér na mooy ci asalaamaaleykum wa rahmatullah ak asalaamaaleykum am na ñoo xam ne sax dañuy egg ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am na gis naa ci ci su ma jumul Égypte la ay aima yoo xam ne bu ñuy sëlmal dañuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am ñoo xam ne tam asalaamaaleykum rek la ñuy wax ñuy seetlu Thierno Aliou asalaamaaleykum foofu la doon yem. waaw moom jàngale na ko fii. voilà asalaamaaleykum la ñuy wax. waaw loolu moom mooy li gars yi wax ak taslima al maarufa mooy sëlmal bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu xam. وديمي برغ فوتا كي مل نون بي بير سالو باسكو وا جمعة مدينة باي دي مل نون امام بي السلام عليكم لا يوم وا اندك ني نيار ييب سنن تي تي اي سنن ما السلام عليكم ورحمه الله فينال بلا واخ كون تي سنن يي لا بوك نكو دون تاميت سوترا بي نيت كي دي داف تي كانام بوي جولي سوترا بوبو نون تاميت تي سنن يي لا بوك واخون نين تاميت نيت شرط ييغا خامني نيوم نيو تي تيغو charte bi ci jiitu mooy mu doon loo xamante ne lu laab la na doon loo xamante ne lu laab la naka noonu tamit guddaay bi tolloo guddaayu zira waaw guddaay gi toll nii beneen bi mooy mu doon loo xamante ni tam diisaayu kii la yam xeej xeej la yam mën nañu wax ne sax ñeenti charte la mooy ñeenteel bi mooy bu bañ laa soxla mu doon loo xamante ni du la occupé du la occupé da mën a def li ngay def fekk du la dérange loolu noonu ci sunna yi la bokk yenn saa yi sax nga gis ci ay aimma lu mel ni Malik Malik dafa ne nit kuy julli moom kenn ci barab bu mu njort am ku jaar ci kanam def ko ci amul julli. moom ci boppam. Malik oh. ngi doon loolu ci euh, mu dawwala dañ ko cee laaj affaire sutura. Mm-hmm. mu ne nit kuy julli moom kenn. Oh. te mu wóor ko ne wala muy njort ne bokk muy njort ne fii mun nañ fee jaar. Mm-hmm. te deful sutura ci kanamam. mu ne kooku amul julli. laa salaata la wax amul julli waaye amaana Malik moom mazhabam di gars zari'a la rek maanaam day taral pour moytuloo loo ñi. pour nit ñi maanaam bu sharia ne dix dagan na moom mu ñëw fexe ñu yem ci witti yi balaa ñuy egg ci dixième bi loolu moom mooy mazhabam xamee nañ ko ci shaddu zari'a. lii nii moom mooy li ñu indi woon ci lu jëm ci farata ak sunna ci résumé farata yi ñëw taxawaat tuuti ci sunna ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may dégg ak topp alhamda walu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min xiin ila xiin in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh